back, back. Aywa back, back, back, back, back, back, back. Aywa back. Deuxième tour de fils oral. Aywa back. Aywa back ñëw leen baccalauréat, baccalauréat, baccalauréat. Deuxième tour, troisième tour. ñoo leen promotion la promotion la ndax ren ñu leen di surveiller sax dañ leen di surveiller.